أول بارز من التجليات وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان في جميع التطورات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñuy deglu wala ñu seetaan fu ñu mën a nekk ci àddina ñu leen di nuyu néew bu sell kenn ku nekk ci sa tur ak sa jëmmi bopp di ndokkeel ñëpp ci weer yi dul xijja nga xam ne taxaw na ndax tey mooy fanweeri fan ci zul qada suba mooy benn fan ci zul xijja loolu ne weeri tabaski taxaw na wax nañ ak xalifa bi d'accord nañ ak moom pour wax leen ne tabaski bi àllarba bii di ñëw bu dellu see la allah fii ci Medina Baay ñu ngi koy defee fi nga xam ne fa lañ ko daan defee ci jullekaay bi su fekkee ne ngàntal taw amut bu taw amee nag dañ ko yóbbu ci jumaa ja defee ko fa waxtu wi itam mooy waxtu yi ñu daan def neuf heures et demi mooy waxtu yi nga xam ne ci la ñuy war a nekk ci kaay bi pour juli salaatul iid boobu ñu ngi ñaan yàlla mu nangul ñu nangul ñëpp nangul mboolem julli ñi fu mu mën a nekk ci àddina bi nangul waa Sénégal nangul waa Medina Baye maa ngi ndokkeel itam mboolem xalifa yi ak mboolem kilifa diine yëpp di ndokkeel itam gouvernement bi ak ki leen jiite muy président Macky Sall di ndokkeel waa senegal yëpp di ñaan yàlla musiba yi wëndeelu ak balaa yi wëndeelu ak feebar yi wëndeelu yëpp yàlla ñu ci yàlla musal ñun ñëpp musal ci mboolem àddina bi yëpp ndax feg ñu ngi koy dégg rek xel yi daa gut kon yàlla na ko yàlla demee jeexal ko yeneen yi mel ni moom yiñ xam ak yiñ xamul yëpp tam yàlla na leen yàlla demee jeexal leen te wutal seen place jàmm wutal seen place wér wutal seen place yomb aju yëpp mm-hmm. ak seen faju mm-hmm. yàlla mën na loolu yàlla na ko def fon mm-hmm. nag <coughs> bayaan baa ngi noonu ñëpp xamee nañ ko noonu incha allah àllarba vingt ci weeri juin bii ñu nekk mooy jii di ñëw su dellusee mooy bisi tabaski bi fii ñu ngi ñaan yàlla mu weñ ñu teeweyaat ko at yu bëree bëri ci kanam te at mu ñëw rek yàlla na gën ba ko jiitu ci barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass ci barke Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci barke Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp dañ ko waajal pareel ko ndax fukki fan yi nga xam ne suba lay commencé mooy fukki fan yi nga xam ne moo gën ci at mi fukki fan yu tegaloo mooy fukki fan yi nga xam ne moo gën ci at mi ci fukki fan yu tegaloo moo tax yàlla gëj na ci boo jàngee wal fajri wala yaa leen ashrin jooju ashrin mooy fukki fan yi yàlla ñu ci yàlla dimbale defal ñu ci tawfiq bañ màngu ko màngoo xam ne danañ jëriñ tey jëriñ ñu ëllëg axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf al imaam al akbar imaam Cheikh Tidiane Seydi Aliou Cissé kon nag mbokk yi mu ngi noonu mu di tabaski gi teeru na ci altine ji benn fan ci weeru tabaski 1442 tolloo fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2021 jullit tabaski gi kon dinañ ko amal ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet bii ñu nekk 2021 incha allah fii ci saam ci Medina Baye bu ngant amut bu ngant amee muy ngantal taw. gaaw dinañ ko amale ci jumaa yi Medina Baye jërë ngeen jëf ci déglu bi ak seetaan bi alhamdulilah alhamdulilah leen ci seen chen MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu